dalleen ak jàmm jàmm xewul ci réewum Niger coow la jeexagul coup d'état moo fa am l'observateur ne Sénégal waajal nay takk deram ngir tàbbi ca xeex ba journal Futur Média bi ne la tax ñu wax ko moo di ne tey jii ci altine ji la l'armée bi di dajalay takk deram ya nar a utali Niger le quotidien na dëgg la keroog ba ministre affaires étrangères di Aïssata Tall Sall waxee ne bu CEDEAO noppee ngir lijjanti la xew ci réewum Niger Sénégal seeni takk der du ca des gannaaw journal bi ne loolee kese te itam nguur gi fawu ci tey ji la ñuy dajale ca a CEDEAO li ñu bëgg moo di militaire ya delloo nguur ga Mohamed Bazoum ma fa nekkoon lu ko mooy dinañ intervenir militairement loolu di tekk ne daloo bëgg a lijjanti mbir mi ci guerre te réewum Sénégal seeni takk der naru cee des gannaaw gannaaw loolee itam barça wala barsàq gi jeexagul libération yéen a kaay ne diggante weeru avril ak léegi lu ëpp ñetti junniy sénégalais suux nañ ci waaxee daxlaa ga ca Maroc te ñoom ñëpp nag li ñu bëggoon moo di utali réewum Espagne bés bi jour ne ñu bari ci ñoom li ñu xamle moo di ne jéem nañu ut visa waaye buntu bu ñu fëgg dafay dëgër nag la ñu wax ne moo ci gën a dëgër lii tax ndaw yu bari doon xool yoonu géej gi waa ambassade bu France ne ñu déposé ngir ami visa moo bari te itam bari na ci ñoo xam ne fa ñuy jaar dara jaaru ci yoon Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières ne loolee rek doy na sëkk ngir ñoom waa Europe ñu xoolaat seen taxawaay waa Sénégal gi rëcce ci njombe ci aljuma bi ñu weesu moom la source a xëy di waxaat journal bi ne projet attentat la defkati ñaawteef bëggoon a amal ne mooy ndayi mbil ga lépp moo ko jiite Ziguinchor le journal bi wax ne fa la dëkk maire bu Ziguinchor moo ngi ci danger Walf Quotidien ne Ousmane Sonko ak ñu bari ñu mu nekkandool ca kaso ba fukki fan ak juróom a ngi nii ñu sóobu ci grève xiifal lii tax journal front terre bi dinu xibaar ne tàmbali nañoo lottu libération yéen ne ci ci gën a toll moo di Cheikh Bara Ndiaye tax Cheikh Thioro Mbacké bu Pastef di ñaawlu li nu lànkal ak njabootam xool a ñu dénk wàllum yoon ak Antoine Félix Diome bu intérieur ñooy njaak ñoom ñaari itam lan ca joxoñ baaraamu tuuma Khalifa Ababacar Sall mi waa yeewi askan wi tuumaal ba tax ñu ni génne nan taxaw ca coalition ba moo xëy di tontu ci Vox Populi Khalifa Ababacar Sall ne mbindeef mënu ko génne ci biir coalition bi amul lenn lu mu def lu tax ñu ko fay génne moom moo jiite ñi doon xaatim carti coalition ba te itam amul fenn foo xam ni da ko faa xottee mu ni ñu bari la leen di tëbaka dal moo di dialogue ba mu demoon te njiitu réew mi bu woote waatoon ji ndax li mu gëm moo di ne am réew dañ koy waxtaane Xalifa Babacar Sall tëj wax ja ne bés bu ñu ko taxee wax ba mu wax yuuxu dina jib fun ko foogewul li ñëpp foog moo di moom Xalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade seeni mbir leer na ba tax dinañ mën a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 le quotidien ñaari kaay yi am nañ beneen kaa bu nu war a lijjanti muy cutis fiscal Les Échos ne booba fekk na Karim Meïssa Wade moom di waaja ñibbisi ba ay ñoñam lancé ñu duppee opération ñibbisi ngir waajal seenub candidat kan moo nar a nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar l'observateur ne am na yeneen i waxtaan yu bees yu am ci seen biir source a xëy dinu faram-fàcceel la ca bees ba ñuy xibaar ne Mahmoud Saleh ak Mor Ngom ñoo jiite waxtaan wa le témoin ne Aly Ngouille Ndiaye moom nee na candidat à la la ci benn Bokk Yaakaar te noppiwul sax ngir dellu ca gannaaw tribune ne Aly Ngouille Ndiaye kay li mu jàpp moo di moom mooy ki war a wuutu président Macky Sall journal L'Info ne fi mu toll daal seereen ci diggante Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Diouf Sarr journal L'As ne waaye naka Amadou Ba leen gën a jekk taxawaay fi mu toll démb rek ca Kaffrine mbooloo takk moo génnoon di ko teeru le mandat ne démonstration de force la fa def direct news ne monte nag sport moo ko fa yóbbu woon sport itam moo yóbbu Sadio Mané ci Arabie Saoudite stade yéene kaay ne Sadio Mané am na fukk ak ñetti trophée ci carrière am journal record ne dafa tàmbali ci Al Nassr rekk dégg daali kan ci diggante Modou Xarañ Lo ak Ama Baldé wala Tapha Tine ak Eumeu Sène moo nar a dégg daali sunu làmb ne lu ci mën di am daal weeru novembre moom làmb ji dina sajji xam te ñoo nekkoon ca Mali dóor yi député yi di Mamadou Niang ak Massata Samb dooroon seen naataango député Amy Ndiaye ñibbi cour d'appel bu tribunal bu ndakaaru tey la ciy àddu ñaari député yu parti pur nag tëdd nañu kaso ba noppi Khalifa Sall ginnaaw bañ ko dàqee ci coalition Yewwi Askan Wi nee na tey la gën a bokk ci coalition boobule Khalifa Sall ne rëccuwul li mu bokk ci dialogue national bi su amatoon tey mu wujji président Macky Sall syndicat bi ëmb médecin yu Sénégal di SAMES ñooy sàkku ci nguur gi mu soppi melekaanu yenn yi ten boole ci nag ñoo di liggéeykat yi xibaaru tàggat yaram daan ci ànd ak Youssouf li ci yéene kay ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck. Fama John. ci kàddu gi Abdoulaye Diop ci technique bi ginnaaw ba ñu leen nuyoo mbokk yi dañu koy tàmbaleek mbiru Massata Samb ak Mamadou Niang mooy ñaari député yooyu nga xamante ni ñoo fi dooroon ci ay jamono seen naataango député ami Ndiaye ñibbi seen procès en appel nag tey ci altine gi lay tàmbali loole nag ginnaaw bi nga xamante ni defoon nañu loole audience bi waroon na am fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin gi ñu génn dañ ko dàqoon bu fukki fan ak ñeent ci weeru août li ñu sàkk mooy yi xamante ni moo di Amy Ndiaye ñibbi moo ko sàkk woon ñaari député yi nag eh, bu ñuy comparaître tey duñu jóge ci kaso bi ndaxte génn nañu eh, fukki fan ak ñett ci weeru juin gi ñu génn kon 6 mois juróom-benn weer la ñu leen tëjoon ci kaso bi nga xamante ne tëj nañ ko ñaari député yi nag kon dañoo jàppoon seen natango député Amy Ndiaye ñibbi eh, daal di ka dóor ginnaaw kàddu yoo xamante ne nañu dafa ñagas mu teg ko ci kaw ki nga xamante nii moo di seenub sëriñ ñu wax ci leneen xalifa Sall tey la yëkkati kàddu ginnaaw bi nga xamante ni Yewwi Askan Wi ne génn nañ ko ci coalition bi ñi nag euh, moom mënut a génn ci coalition bi ndax coalition boo xamante ni bokk na ci ñi ko taxawal xalifa Sall daal di ne wàllum dialogue bi moom amul lenn lu mu ciy rëccu ndaxte su président Macky Sall woote waatoon ab dialogue tey ji moo fay jiitu Seydina Bilal ñaaw njiital taxaw Sénégal di ñaawlu kàddu yi yenn responsable coalition Yewwi Askan Wi yëkkati ngir duut baaraamu tuuma bile partem depuis le meeting du M24 amul lu ñu dégg amul lu ñu wax ma ne alors dafa wax ne wax mu jëm ma mu jëm fa mu jëm lu dul dëgg lu mu teg ci ne ay góor lañu ay bu ñu sukkandikoo ci moom kenn mënu koo génne ci bile coalition. xalifa Ababacar sàll di xam la ne bu njiitu réew mi Macky sàll woote waatoon ab dialogue dana demaat wuy ji. dialogue bi ñu dem tey su amaatoon ñu delluwaat. ñu nëbbatu ñu musuma def lu ma leen wax musuma def lu ma leen wax donc na ne yéen askan yi sama gannaaw moom njiital taxaw Sénégal di woo ay militant wam ngir rek ñu gën a mobiliser wu ngir waajal élection faruk njiitu réew mi ñu jàpp ci février 2024. basketball ci wàllum góor ñi tournoi préqualification olympique tey ci ngoon lay tàmbali ca Lagos. ci groupe A bi Sénégal kon dina ci jongante bu 18 jotee diggante ak Nigéria mi organisé jàppale ne ci équipe bu Sénégal si Sy bokkut ci waaye capitaine bi di Youssoupha Ndoye wala Branco Badio wala sax Amar Sylla bokk ci joueur yu Sénégal ñu fàttali ni bu Sénégal dem directement Nigéria bàyyi ko Chine foofule amal fa benn tournoi xarito euh, daan Iran ak euh, Philippines Philippines euh, ci match bu mujj bi moo mujjee daan Sénégal ñu fàttali tournoi qualification olympique boobule kon nañ ko wéyal ci Lagos ba le 20 août bi di ñëw bu 15 heures jotee match bu njëkk bi dina dox diggante Mali ak Ouganda ñu fàttali ni ci beneen groupe bi groupe B bi ñi di waa Cameroun ñoo fa nekk République démocratique du Congo Guinée ak Tunisie. ñaari équipe yi jël euh, place yu njëkk ya ci ñaari poule yi ñooy daje ci demi-finale yi dañ leen di croisé premier bi mooy daje ak deuxième bi euh, ku gagné kon tournoi boobule ca Nigéria euh, moom mooy dem jongante tournoi bu mujj ngir kon. fexe ba am tournoi bu ko yóbbu ci Jeux olympiques Paris 2024. dañuy waxtaanee parabasket gaynde yi daañu dem xooli seen qualification ci Jeux paralympiques yi am ca Ghana. mooy kon ñu amee laago ba pare di yëngu ci wàllum euh, basket euh, ci tournoi olympique boobule euh, tournoi Jeux africains yi la ñuy jongante kon ci Ghana 2 ba le 13 septembre bi di ñëw di tournoi boo xamante ni mun nañ ci am seen ticket ngir dem ci Jeux paralympiques yi am ci Paris atum 2024. Euh, parabasket bi sax ci week-end bi euh, lañ doon amal seen début finale euh, championnat final bi dina dox diggante waa Mbour ak Pikine ñu déglu ci Cheikh Ndiaye mi jiite fédération bu parabasket. final bi ñu ngi ko prévoir le septembre incha allah Marius Ndiaye li tax le 23 parce que ci diggante bi équipe nationale parabasket ginnaaw bi mu qualifié ci Jeux africains yi dafay dellu ganna pour defendre les couleurs du Sénégal ñu ngi koy joué ci à partir du 2 au 13 septembre équipe nationale bi war a dugg regroupement le 20 août objectif bi nag nekkul lu dul dem gagner trophée bi indil ko Sénégal ba pare mu permettre ñu ñu mën a qualifier les Jeux paralympiques bi nga xamante ni mi ngi am ci Paris en 2024 liñ ci yokk rek je ministère des sports bu fekkee ni championnat nationale la ministère dërëmam di ci dugg mais bu dee compétition internationale comme équipe bi war a dem ni Ghana lépp ministère moo koy jël en charge ñu ngi dugg regroupement la 20 moo ko jël en charge billet d'avion yeeg bu ñu demee hôtel bi ñu logé yëpp moom moo koy jël en charge ñu leen ciy remercier parce que foofu au moins mën nañu wax ni ñun ak yeneen fédération yi ñoo bokk même traitement ñu war ci dugal plus de 35 millions yoo xamante ni pare na pour def ko ci pour ñu mën a dem voyager dans les meilleures conditions kon muy noonu équipe euh, nationale euh, bu euh, para basket kon dina teewal Sénégal ci jogante yooyu lee di am ca Ghana ñu waxtaanee basket ba tey gi ak jigéen ñi lu jëm ci kon demi final coupe du Sénégal match aller yi dëmb lañ ko tàmbali ak AS Ville de Dakar ak Jeanne d'Arc bu Ndakaaru ñoo def match nul a à ku nekk 47 kon nga dugal sa morom jàppale ni Duc Jaraaf mercredi bi lay doon bu 16 jotee Fama Dione. dañuy waxtaanee mën na yi phase nationale yi am ca Kaffrine. résultat yi am kon ni ki euh, démb ca stade bu Kaffrine bokku jëf bu euh, Thiès euh, moom nag kii di étoile Kaffrine moo ko daan ñaari bal ci benn 0-0 diggante bokk xalaat bu Ndakaaru ak jamono bu Louga ci stade Kaffrine ba tey Espoir Diso Tamba moo daan Belfort bu Ziguinchor benn bal ci dara jam bugum bu Fatick moom jamono kon bu Kaffrine moo ko daan ñetti bal ci benn. Euh, ci euh, poule B bi euh, ca stade bu Malem Hodar Sanakoro bu Kolda Linguère bu Fatick moo ko daan benn bal ci dara raay bu Kaffrine daanu ci kanam réveil Dagana benn bal ci dara daxaar gi bu Kaolack moo daan Boulane Diourbel euh, benn bal ci dara euh, jama ndand bu Louga moom ak euh, xay gi bu Kaffrine waa Louga ñoo gañe ñaari bal ci benn ca stade bu Mbirkilaan jamono bu Kaffrine Wuteng Kédougou moo ko daan benn bal ci dara yeewu bu Diourbel daan ndargu ndaw bu Ndakaaru ñaari bal ci dara faama waxtaan waxtaanee football ca bitim réew championnat européen yi ci week-end gi joué nañu. ñu ngi ko doon tàmbali kon fu nekk ak première journée yi ci Angleterre lañu jëm foofule Chelsea match bi nga doon fës kon euh, diggante ak Liverpool 1-1 lañ def doomu Sénégal bi Nicolas Jackson matcham bu njëkk ci première League mu am ci taxawaay bu am solo doon doonte sax dugalul euh, Brentford ak Tottenham ku nekk dugal sa borom ñaari but Pape Matar Sarr 75e minute la dugg euh, ca Espagne première journée Liga Betis Séville daan Villarreal ñaari bal ci benn. Youssouf Sabaly joxe passe décisive Sénégal yi nekk ci championnat boobule 20 millions d'euros euh, lañ ko jëndee fële ca euh, Strasbourg. Neymar tamit euh, jege lool de dina fa dem sax Arabie Saoudite ndax déggoo am na diggante Paris Saint-Germain ak Al Hilal di club bu Kalidou Koulibaly moom doomu Brésil bi kon montant transfert bi nee nañ nañ toll ci 90 millions d'euros fama jonn. dañuy jeexale wàllum làmb. lamb ji ak euh, démb combat bi amoon euh, fële ci arène nationale euh, te kii di jamaïcain organisé ko jàppale ni kon kii di Baye Mandione moo doon bëre ak Bébé Diène bu écurie Soumbédioune Bébé Diène kon moo mujjee am ndam ci kaw Baye Mandione di mbëru caaro yi gëm sa bopp mu doon juróom-ñetteelu ndam bu kon Bébé Diène am démb kon ci kanam Baye Mandione mi nga xamante ni kon daal di enchaîner beneen défaite Faba